assemblée nationale tey jii nii ak euh, permettre ko mu am droit de vie et de mort sur l'assemblée nationale. mais moo daawa euh, gis nga des fois yàlla nañu yàlla di musal ci média. <laughs> surtout impact bi dans un premier temps. Mm-hmm. parce que ñëpp a ngi foog ne tey li xew assemblée nationale catastrophe la L87 boobu. Mm-hmm. mais au contraire da ngay seet un jeune comme euh, l'ancien de Idrissa Seck là. qui fut député d'ailleurs. Thierno euh, Bocoum Thierno mais il a fait une excellente tey contribution que je partage à cent pour cent mm-hmm. parce que gis nga Sénégal dañuy dañuy yuuxu la mët day yuuxu te du dem ci fond des choses mais moo awa naka nga mën a comprendre tey un président nouvellement élu moo war a ñëw toog ñu ne ko mënuloo dissoudre assemblée nationale fekk amul ñaari at yow nga xool ci contexte bi majorité bi tey amoon tey à l' assemblée nationale mm-hmm. jeu de rapport de force bi am tey assemblée nga bëgg ko imposer président nouvellement arrivé bi askan bi am ci moom yaakaar élire ko démocratiquement mu war a toog war a commencer di dérouler mais am benn assemblée nationale qui lui est hostile. mais c'est la voix du peuple. non à une époque à un moment. pour cinq ans. à un moment à un moment mais un président de la République soo xasee ba fal ko dang ko war a mën a permettre mu am légitimité en France moo amul 4 ans amul 5 ans Macron tey su ko dee woon tey mu jël décret dissout assemblée nationale bi tey mais parce que loolooy démocratie loolooy renforcer démocratie mais par contre avec des garde-fous tu dis L87 bi lañ ci waxoon d'accord nga ko mais nga def ci benn amendement pour ne lii on le permettrait qu'à un président de la République nouvellement élu si tant effectivement que il se reconnaît pas dans mais on comprend mais nga yow suba tel stigmatiser lu mel noonu mais xalifa c'est un homme politique. Mhm. vécu bi mu am expérience bi mu am kenn amu ko ci foofu mu nekk. pourtant ces députés ont dit que duñ ko voté. déggoo li ma wax moo tax may Khalifa Khalifa il faut mu xam ne ni il est face au destin am na yoo xam ne mar naan bu mu war a tax mu naan politique bu mu dugg ci loolu gis nga ñële du ñu ay naawlem ci dara. pourtant ñooñu ñoo doon wax naan tey jii ni il a l'occasion euh, de prendre d'entrer dans l'histoire ak porte bi muy choisir parce que jàppoon nañ ne bu ko voté il a trahi ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy le peuple sénégalais. mais mais moo leen arrangé Bodo Awa. moo ñu waxee noonu xam nga lu tax moo moo leen arrangé. mais tey Khalifa Sall tey par le hasard des choses mu nekk président de la République du Sénégal mu am tey même une majorité qui est incarnée par Benno. Mhm. ñu bëgg ko xatal tey mu jëm. sur deux ans mënu ci dara il va vivre stoïquement avec tout ça. mais li bu jàlloon tey jii ni ñu ko bindee du sax dem bay nekk candidat day nekk président parce que yëf yi benn benn kii la woon. day dem wala mu toog mais man su doon moom damay conséquent parce que gis nga wax naa sànq à l'entame de mes que nguur yàlla moo koy joxe. Mhm. Khalifa na xam ne ne il n'a pas destin que ces despotes là ces fascistes là. àndul ak ñoom warul ànd ak ñoom